أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل على عباده بأوقات القربى وأزمنة المغفرة والرحمة والفلاح أحمده سبحانه وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ngeen di ci ànd ak seen mbokk seen xarit Mouhamadul Mounir Niang euh, talaata bu nekk ci waxtu bi te nag ñu fas yéene waxtaane li def waxu te ay di njàmbat te mooy weeru koor weeru koor lañ bëgg a waxtaane tey incha allah xuus tuuti ci ay ngëneelam waaye ñu tënk ko rek ci trois points incha allah ci waxtaan bi ñu tënk ko ci trois points point bu njëkk bi mooy jéggale gi nga xam ne yàlla dana ci jéggale ay bàkkaar ñu profité waale ci wax ci gravité bàkkaar niki noonu deuxième point bi ñu fas yéene wax ci jéng gi nga xam ne yàlla dana jéng seytaane ci weer bi ci weeru koor ñu profité waale ci wax fan la seytaane di jaar doomu aadama ngir yàqal ko ay jaamu yàlla ngir boole ko ci mbooloom ba mu dugg safara troisième point bi ñu fas yéene wax nag weeru koor yàlla nangu gim ci nangu ay ñaan nga xam ne du ko nangoo ci leneen lu dul weeru koor ci ñetti point yooyu ci lañ fas yéene tënk waxtaan bi incha allah bu ñu ko temps bi mayee euh, point bu njëkk bi te mooy jéggale gi nga xam ne dana ko jéggale ay bàkkaar weeru profito la ndax boo xamee gravité bàkkaar nga xam ne weeru koor yàlla daf koy jéggale ci num gën a yombee dana tax yow mi nga xam ne jullit nga nga góorgóorlu ba weeru koor bi bañ laa raw ndax képp koo xam ne góorgóorlu nga ci weeru koor ba yàlla yërëm la ci kooku am nga chance ba faw waaye képp koo xam ne sàggan nga ba yërmande googu raw la kooku ñàkk nga chance ba faw ndax xamoo ndax da nga ko fekke waat wala doo ko fekke waat wala ndax boo ko fekke waatee ci ban situation la lay la lay fekk kon lu mat a bàyyi xel la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn jour dafa yéeg ci kaw minbar bi au lieu que mu xutba mu naan amin amin amin wax ko ñetti yoon saxaaba yi laaj ko daan ne ko yow yonent yàlla bi lan moo waral sa amin yi mu ne leen jibril moo ma ñëwal léegi daal di may wax ne ma Euh, képp koo xam ne weeru koor jot na ko te sàggan ba kenn jéggalu ko ba dugg safara kooku yàlla soril na ko daan ma waxal amin moo waral ma wax amin kon kooku lu mat a bàyyi xel la weeru profito la euh, balaa mu ñuy raw occasion la bu ñu yàlla joxati incha allah bu defee ñu dugg ci ak jàmm yàlla def ñu génn ci ak jàmm génn ci tamit bokk ci ñi nga xam ne yërëm na leen bokk ci ñi nga xam ne jéggal na leen euh, niki noonu bàkkaar yi nga xam ne yàlla dana ko jéggale ci weeru koor bàkkaar dafa nekk lu yéeme ndax daanaka mun na yàq dundu doomu aadama def ay bàkkaar ndax nit dana dem ba ci def ay bàkkaar yu bari yàlla sanctionné ko téye wërsëgam da gis ku nekk ci ay jafe-jafe yu dul jeex la ko ko yóbbee mooy def bàkkaar yu bari koo xam ne lum song du ko daane lum dugg rek blocage am ci kooku bari na doomu aadama lu muy nekk ci situation yooyu te lenn yóbbewu ko ko lu dul bàkkaar yu bari yu muy def kon lu mat a bàyyi xel la bàkkaar bàkkaar yu bari nit ki domaine bu mu mën di yëngu bu moytoo bàkkaar rek yàlla mën na ko dimbale mu def ca kéemaan mu nekk ca koo xam ne ku ñuy tudd la lu mat a bàyyi xel la mbokk yi bari na ku mokkal alquran fàtte ko wala koo xam ne sax yàlla def na jubluwul alquran wala koo xam ne mu ngi toll ci def ay étude am waaye amul chance u euh, am ca la mu bëgg ca tafawux maanaam ca kawe gam bëgg ca njàng ma amu ko wala ku jàng ba pare liggéey takku loolu dana ko yóbbee nit bàkkaar yu bari hakaza kon bàkkaar yu bari danay gàllankoor doomu aadama lu bari ci dundam ba tax na kon weer wu mel muy weeru koor bu la bu ñu yàlla mayee occasion nañu damay jéggale bàkkaar yi ci façon boo xam ne duma ko jéggale ci beneen façon bu dul ci weeru koor kooku kon occasion bu mag la bu ñu may kon nañu fexew ngalawaay mbokk jullit yi bu mu ñu rëcc ci loolu kon la defee weeru koor moom suñ borom tabaraka wa taala muy weer woo xam ne da ciy libéré ay nit ci safara ñoo xam ne dañoo waroon dugg safara yàlla xool leen bëtu ma ne ngir weeru koor gi nga xam ne teewe nañ ko te jéem ci góor góorlu yàlla ne leen libeere naa leen dootu leen dem safara waaye aljanna ngeen jëm kon nañ euh, sonal suñ bakkan nos suñuy bànneex ci jaamu yàlla ci wiir weer te tamit am yaakaar bu baax ci ne yàlla danañu nangu ñaareelu point bi mooy weer bi nga xam ne yàlla day tënk seytaane yonent bi sallallahu wax na ne ramadaan bu ñëwee dañuy tënk dañuy ubbi bunti aljanna tëj bunti safara daal di tënk seytaane yépp ba weeru koor bi jeex euh, seytaane bokk na ci li gën a sonal doomu aadama ndax keroog ba nga xamee ne rëy na te rëy ga la ko weeral mooy iñaan gum iñaane woon yonent yàlla aadama ci xéewal yi ko yàlla jox ba lekk loo ko pom ba teewul yàlla jox ngëneel doomu aadama euh, ci mu ci xamal ko loo xam ne xamalu ko malaaka yi te iblis ci malaaka yi la doon nekk ngëneel googu mu ko joxoon ba mu waral nag yàlla ne malaaka yi nañuy sujootal yonent yàlla aadama iblis bañ moom la ko iñaane ba lekk loo ko pom ba teewul ba ko yàlla wàccee nag ci sababu sanction bi mu ko def moom iblis nee na ko faw fa bi izzatika la ughwiyannahumu ajmain maa ngi wàcc sa tedd nga gi yow suñ boroom ne danaa leen bewloo ñoom ñëpp danaa leen jengloo danaa fexe ba duñ la jaamu nañ la war a jaamu danaa fexe ba ñoom ñëpp ñu wétali si safara yàlla ne ko nag ba mu des nag sama jaam yi nga xam ne dañoo sellal jaam yi nga xam ne dañoo sell te sell lu koy maye moo di sellal sellal jaamu yàlla dinañ ci ñëw léegi mooy jaamu yàlla gu set wecc ci ngistal jaamu yàlla gu set wecc ci yéem sa bopp incha allah danañ ci ñëw seytaani moomu nag waat googu mu waatoon dana def la tout pour matale ko te mooy gàllankoor nit ñi ba du ñu jaamu yàlla wala bu ñuy jaamu yàlla sax jaamu yàlla ga du saf jaamu yàlla jaamu yàlla gu saful jaamu yàlla mooy goo xam ne danga koy def mouvement yi rek ngay def waaye yàlla gisu ci dara doo ci am dara yal nañ ci yàlla musal ci loolu nag day teg ay ay pexeem ak ay stratégie moom iblis ngir tere jaam bi jaamu yàlla la muy njëkk objectif bu njëkk mooy bu kenn jaamu yàlla bu fekkee nag euh, am na euh, échoué na foofu moom iblis yàlla aar jaam bi ci pexeem iblis ba baaxee ko mu di ko jaamu ndax képp kuy jaamu yàlla rek ci ngëneelu yàlla la bu ko neexul woon doo ko jaamu bu fekkee yàlla baaxe na jaam bi mu di ko jaamu mu ne ah comme mënumaa fexe ba du jaamu yàlla de xaaral ma digal ko muy def taswif taswif mooy loo war a def léegi nga ne xaaral ma ba si kanam wala ba xaaral ma bàyyi ba suba wala jeune la balaa may jaamu yàlla xaaral ma ba màgget wala yu mel noonu euh, yaakaar naa moom la wax procrastination muy loo xam ne day tardel doomu aadama rawatina ci jaamu yàlla iblis bu fekkee échoué ci tere la jaamu yàlla daf lay xiir ci ngay def taswif loo war a def nga ne xaar mu def xaar ba si kanam te mën nga faa jaaree fàtte ko ba doo ko def te su boobaa am na lu mu bëgg moom iblis su fekkee nag yàlla musal na la ci loolu yow jaam bi mu ne ah léegi dinaa la bàyyi nga jaamu yàlla nag waaye dana fexe ba nga def ko ci yàkkamti ne la ah yow de journée bi li nga war a def bëri na yaa ngi wara def li yaa ngi war def li gawal nga nga dem ndax bo fi nekké julli gi bu yagge nangam nangam luna dana la ko wax rek pour nga gawal julli gi wala façon jaamu yalla ba ngay def wala nga ñak ci teewlu sax ba nga xamné do ci am dara koku ci ay pexé iblis la muy euh pa bi nga xamné dana ko tek bu fekké nag fexé na ba mënula mënul fexé ba nga yakam ci say jaamu yalla mu fexé ba nga def ko ci ngistal manam nga def ko waye bu ko def ngir yalla waaye def ko ngir nit ñi kontaan ci yow ngir nit ñi taggale ci ak yu mel noonu te yonent bi sallallahu alayhi na ne ngistal mooy euh, ngistal moo di euh, shirk bu ndaw maanaam moo di bokkaale yàlla bu ndaw al shirkul asgar fekkee nag mucc nga ci ngistal googu mu daal di fexe ba ngay yéem sa bopp ca la ngay def maanaam nga yëkki sa bopp mel ni sa njàmbaar moo tax ngay jaamu yàlla te njàmbaaru kenn taxul di jaamu yàlla ndax jaamu yàlla jaam bi mën nañ ko méngalee li ñuy tuddee bayul fudul ci arab euh, bayul fudul mooy njaay moo xam ne euh, yow miñ koy jaay yow yaa ko mën a wéyal mu wéy boo ca d'accordul du dem ngi koy misaal ci jaam boo xam ne dafa liggéey ci toolu sangam baykat yi ñoo koy xam daldi euh, ñu defar ba naaf gerte ya ba jël la fa waroon nekk ci gerte sol ko ci ay saako ngir jaayi ko moom nag mu foraatu ca desitu gerte gerte ba am ci lu bari dem jaay ko sang ba sang bi moo ko moom moo moom tool bi moo moom gerte gi mu koy jaay bu ko neexee mu nangu ko bu ko neexee mu ne ko déet maa moom indi bu ko neexee mu fay ko bu ko neexee du ko fay jaam bi jàkkaarloog boroomam di ko jaamu tamit kazaalika noonu la jaamu gi moom amul lenn lu mu ci def ndax yàlla moo ko bind tàgguwu ko yàlla moo ko may xel yàlla moo def ci xolam gëm yàlla gum jàkkaarloo moom ba di ko jàmm yàlla moo ko may kàttan gi tamit kon occasion yëpp ci yàlla lay dellu kon loolu lu mat a bàyyi xel la kon jarul yéeg sa bopp jarul yéem sa bopp nee na bu yàlla bu ko yàlla xéewalee ba bam xam loolu moom jaam bi ba gisul bopp boppam ci jaamu ga iblis seetaan beneen pexe daana léegi nag sa jaamu yàlla gi jarul nga di ko feeñal ñëpp di ko gis yow kay def ko def ko mu nekk secret rek sa diggante ak sa borom comme yàlla rek ngay jaamu def ko mu nekk sa diggante sa borom yàlla dana la feeñalal boppam feeñal googu nag lim ci jublu mooy mu nekkati ngistal da lay retourné waat yóbbuwaat la ci ngistal ndax boo ci jubloo ne dama koy def yàlla dana ma mos a feeñal rek boo ci jubloo ak feeñ rek su boobaa day delluwaat ci ngistal bu fekkee yàlla musal na la ci pexe moom topp ba toppoo ko mu daal di lott nag léegi amatul pexe mu ne la léegi yow de dangaa waane rek yàlla kay bu namee ci yow texe mënoo fexe ba doo texe ndax nit dana mooy yàlla ba tuuti dese ko yàlla mu def benn benn bu baax yàlla dugal ko aljana nit dana jaamu yàlla bay waaj a dee tamit def benn bu bon yàlla boole ko ci ñi texee di mu dugal ko safara kon yow looy sonn di nekk fii di jaamu yàlla jaru ko nee na bu fekkee dégluwoo ko nag su boobaa mu xam ne nag perte na ay pexeem jubul waaye nag yombul jaam bi mucc ba egsi fii yal yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy mucc chaque jour ci pexe iblis ba egsi fii kon lu mat a bàyyi xel kon iblis mi nga xam ne moo am pexe yu rëy yii di ko jaare ci bakkan ak ay bànneexam nga xam ne du sonn du tàyyi mukk nee na yàlla bu ñu mayee weer wu ñu toll muy weeru koor nga xam ne daf koy tënk ba benn pexeem du jàll bépp jaamu yàlla boo def yàlla nangu ko te benn julli guñ de nangu rek dugal na nit kon ngalawaay kon nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla ci biir weeru kool bi jàng alquran jaamu yàlla ak xeetu jaamu yàlla bu mu mën di doon bi ci topp mooy weeru nangu ñaan la weeru nangu la yàlla moo wax ci alquran ne ujibu daawata daai isa daani damay nangu ñaanu ki ma ñaan bu fekkee ñaan na ma bu ma woowee sama jaam bu ma woowee ñaan ma dama koy nangul ñaanam waaye léeg-léeg jaam bi ñaan ne ñaan naa ba sonn yàlla nanguwul fekk ay mooy yàlla wala la teem suñuy ñaan nangu li ci ëpp ci ñun la li tee suñuy ñaan di nangu wala ñu koy gis fii ci àdduna li ci ëpp ci ñun la ndax nit ki am na yoo xam ne bu koy def bu ñaanee musiba ya nga xam ne ñaaw ñaawteef ya muy def moom la naroon a indi ñaan gi day dem ngir fànq musiba yooyu mooy waral ngay ñaan du nangu yàlla kon daf koy remplacer feneen mu aar la feneen fu bokkul ak fi nga ko soxla alors que bu fekkone nak yang ci li yalla bëgg bo ñaané rek day ñëw ci sens yi moo nit di dem ba nga xamné dañ nan diiw dafa am lijaaba lu mu ñaan mu nang fekk diwoog boroomam rek moko ko may moo ben nitu yalla bu ñu wax ibrahim ibrahim ibnu adham nga xamné mom tabi'u yi la won tabi'u moy ko xamné gisul yonente bi way gis na sahaba yi sahaba moy ki gis yonente bi gëm ko ta dundu ak mom taabi yi nag mooy koo xam ne gëm na yonent bi sallallahu waaye gisu ko waaye gis na ñu ko gis ñu xam ñu wax ko ay wax ci moom ibrahima ibnu adham nag nitu yàlla bu mag la woon bu bokk ci ñu doon dund ca iraq benn jour muy dox ci dëkk bu ñuy wax basra ci benn marché basra dëkk la ci iraq nee na ba mu yàgg nit ñi wër ko dañ na ko yow nitu yàlla bi ñun de dañoo jaaxle mu ne leen lu leen jaaxal ñu ne ko yàlla de dafa wax ci alquran ne uduuni astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen waaye ñun toujours ñi ngi ñaan te nanguwul kon lan moo waral lu ni mel mu ne leen bu ngeen gisee ngeen ñaan te yàlla nanguwul seen xol dafa dee te xol bu dee nag leer du ca dugg te ñaan leer la hakaza xol bu dee ci fukk seen xol dafa dee te fukki yëf moo ko rey fukki yëf yooyu bi ci njëkk mooy xam ngeen yàlla waaye du ngeen joxe àqam xam ngeen yàlla waaye joxu leen ko àqam bàyyiwu leen lim tere euh, defu leen li mu digle nekku leen ci lu ko neex kon joxu leen ko àqam benn waykat moo tax benn woykat ne woon tansil ilaha wa tuzhiru xubbahu haza la amri fi lqiyaasi badiu mu ne yaa ngi moy yàlla te yaa ngi feeñal na danga koo bëgg lii de waat naa ne lu yéeme la kon yàlla bu fekkee danga koo bëgg mu innal muhibba liman yuhibbu mutiyu koo bëgg kay ci ay bànneexam nga war a dox kon dangeen a xam yàlla ne gëm ngeen ko ne am na waaye nag joxu leen ko àqam bokk na ci li waral bu ngeen ñaanee yàlla du ko nangu bu ñaareel bi mooy yéen a ngi jàng alquran waaye jëfewu leen ko di jàng alquran xam li ci nekk yépp te jëfewoo ko ñi nga xam ne sax yàlla baaxe na leen ñi di ko jàng ndax boo xoolee jamono yonent bi ak tey ñi mokkal alxuraan tey la ëpp tey la gën a yomb tey la gën a yomb nga xam sa diine waaye tamit tey la gën a yomb ay mooy yàlla hakaza bokk na kon ci li rey xool yi bi ci topp mooy yéen a ngi woote ne da ngeen a bëgg seen yonent waaye dangeen ngeen a bàyyi sunnaam yoon moom tracé woon ne leen aw leen ci lii mooy sama yoon man yonent bi mu jëlee ko ci yàlla nee na yoon boobu yéen awu leen ci ñu bàyyi ci xel boo nekkee ci tànt ñu ne sopp yeneen yeneen loxo ci kaw nga yëkkati sa loxo jóg fecc fecc bi sax baax na ndax feccal yeneen moom bàkkaar nekku ci ndax jaafar ibnu abi taalib radiallahu an euh, yàlla daf ne ko yonent bi daf ne ko euh, jaafar ibnu abi taalib papaam ak papa yonent bi ñoo bokk ndey ak baay yàlla baaxee ko nag mu bokk ci ñi nga xam ne gëmoon nañ yonent bi benn jour yonent bi sallallahu alayhi wa daan ne ko yow Jafar, de dag ma niru khalqan wa khuluqan dag ma niru ci jikko ak ci bind rek jafar kontan ba jog di fecc kon fecc ngir yoonte bi koku baxna waye nak na fek nga nek ci sunnam tamit nga xamne ne fecc moomu feccam leer lay don waye du nekk feccam banex waye buñ ne ku sopu yenen loxo ci kaw nga yekati sa loxo dégg nga ta bo moytuul sax euh, la nga tek sa bob ba sax daganul yonent bi daf koy bañ wala diiw ba nga diiw wala yu mel non koku nañ ci baye xel bu baax joxe ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam baxna contane ngir mom baxna na la koy gëna contane la mom yonent bi alayhi wasallam moy nga nek ci lim bëgg baye lim téré jikko ya lañ gëna soxla kon ci mazahiri moy li nga xamne mom lañ feñal ci apparence ñentel bi ci li nga xamne mo ray xol bo su ngeen ñaanee du nangou mooy da ngeen ne seytaane seen noon la waaye lépp lu seytaane bëgg suba ba ngoon yéen a nga ci yéen a ngi def ay digleem di bàyyi ay tereem bàyyi tere bàyyi digle yàlla di def ay tereem kon loolu mat a bàyyi xel la ndax da ngeen ne seen noon la yàlla moo ne la inna seytaane lakum aduwwun fattaxisuhu aduwwa seytaane seen noon la da ngeen ko jàppee muy noonu waaye xam ngeen ne seen noon la waaye jàppeewu leen ko muy noon ñàkk jàppe noon gi mooy lan mooy nekk ci li yàlla buggul kooku day rey xol ba ñaanee du nangu mu ne ko juróomeel bi mooy nee ngeen dangeen bëgg dugg aljanna ku nekk bëgg naa dugg aljanna waaye jëfu leen lu yóbbu jëfoo jëfi nga bëgg a dugg aljanna kooku tamit nekk bokk na ci li nga xam ne day day rey xol beneen bi mooy wax ngeen ne dangeen ngeen ragal dugg safara waaye daw leen lu leen fay yóbbu yéen a ngi def lu leen yóbbu safara chaque jour te bàyyiwu leen ci xel te ku ragal mbir nag war nga war nga ragal yoon wala fa jëmale hakaza bi ci topp mooy wax ngeen ne dee dëgg la ku nekk xam ne ne dee dëgg la waaye préparé wu leen loo xam ne moom ngeen di fekk ci seeni bàmmeel waaw ndax yonent bi salaa salaam waxoon na ne ñaari waaraatekat rek ñoo fi nekk waaraatekat bi wax te mooy alquran du noppi ba mukk ak waaraatekat bi noppi tam mooy dee chaque jour mi ngi ñuy waar waaye teewul waar googu dégguñu ko nee na bi ci topp mooy yéen a ngi soxlawoo toujours siku jàmbur yi bàyyi seen yos toujours yaa ngi lijjanti sikku nit la la manqué le wala ba mu def walla yu mel noonu fekk yaa ngi fàtte say erreur ak say ak say défaut yow ci sa bopp yow mi nga xam ne yaay sikkalaati kooku lu mat a bàyyi xel la nee na bokk na ci li rey xol ba bu ñaanee du nangu bu ci topp mooy yéen a ngi lekk xéewalu yàlla te santu leen ko yàlla mi ngi leen xéewale xéewal yu dul jeex te laaju leen ci dara lu dul ngeen sant ko te sant gi paasewul ngeen jaamu ko kooku dana bokk ci li rey xol ndax yàlla mi ngi lay may seconde bu nekk ñaata nooyi nga ciy nooyi est-ce que bu la laajoon chaque mois bu la laajoon facture nooyi est-ce que da nga ko fay man de mënuma koo fay xanaa sàmba dégg nga mënoo koo fay wala mu laaj la gis gi ngay gis jant bi mu la defal ngay gis foo bëgg a dem dem loo bëgg a def def niki noonu bu la ci laajoon fay munoo ko fay niki noonu demit euh, cër boo ci jël rek lala ci yàlla xéewal ngir nga di ko ci def amoo fayam hakaza ndax cër boo bu mu la may bu nekk xaj na ko keneen kon nag war nga ko cee sant sant ki mooy leen nga jaamu ko ci beneen bi mooy li nga xam ne day rey xool ba léegi bi ci mujj mooy chaque jour yéen a ngi suul ay nit waaye nag du ngeen ci waaro yéen a ngi suul ay nit waaye suul googu ngeen suul ay nit du leen waar ndax yéen bi salaa salaam waxoon na ne tere woon naa leen ngeen di dem di gérer ji ay armeel waaye léegi def leen ko ndax xam naa ne da leen fàttali de waaye xam naa ci jamonoom ak jamono yoo ko jege waaye léegi mu dangay gis sax ci wetu armeel yi nit di def naka sudul noonu maazallah kon loolu mooy li nga xam ne moo rey xol yi ba ñaanee duñ nangu waaye nag yàlla teewul indil lañu weeru koor nga xam ne saa boo ko ci ñaanee rek mu nangul la ndax yii yëpp su boobaa ci weeru koor nekkul loo xam ne day day konte nee nañ nag bi isami zamani wal makaani tati zunubu ma al isyaani nee na jamono na muy màggee ba ku ca jaamu yàlla ñu dubleel la ko fay la la ca ëpp wala place ba nga toog na muy màggee ba boo fa jaamoo yàlla du yem ak nga jaamu yàlla feneen ni ki nga julli ci jàkka bi wala jumaa màkka du yem ak nga julli feneen nee na tamit place yooyu ak jamono yooyu nga xam ne yàlla daf ko daf cee def promotion nga moy ci yàlla tamit noonu la la ko yàlla di fulale kon loolu lu mat a bàyyi xel la li mo nekkon waxtaanu tay bi inshallah mu nekkon ak ñaaxe ci naka la jambi di profito wé ci wéru koor ngir am lañ cey sentu inshallah ndax dugg ci neexna lol waye waaye génn ci tamit am lañ cey sentu moko gën in uridu illa alislam mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh